àggee dañ naan leneen a tax jëflante nag yow ci niñ ko waxee sànq ci wàllu mbokk nga dem màkk ñëw naa ci yow tàggu la nga am loo def sama diggante yow jàll ko seen frère Tafa yooyu yëpp ñëw naa ci kanamu famille bi sant leen gërëm leen wax leen exactement relation bi dox diggante yéen ñii malgré que da ngeen xaw a génn Ndouffane mais ci Ndouffane ngeen bokk te mënuñu leen mënuñu leen génne benn yoon ci Ndouffane seen yaay gën ko rafetal à chaque fois que dara xew ci biir kër gi dana sol waa yeb leen nit mu dem leen seeti diw ak diw diw ne leen nag ñëw kenn du kenn ci yéen ko ci takk jabar te fekkewuñu ko wala leneen kon loolu relation boobu continuer na tey nga ñëw ñëw ndu fa muy sa dëkk li nga li la fi indi ñu apprécier ko bu baax a baax mooy wàllu ndimbal jàppalante ak jigéen ñi mais ci balaa loolu damay remercier ñi nga xam ni suñuy doom lañu suma jarbaat la Pape John ak faatu mi nga xam ni depuis lors ci li ma xam ñu ngi sa ginnaaw di daw nuit et jour topp la xale lañu nag mais nag bëgg-bëgg developpement dëkk moo leen tax a engagé sa bii ñëw naa fi moom Pape Dior ñëw fi Fatou ñëwul mais wax naa ak moom naa ko na ngeen góorgóorlu bu baax parce que ki ngeen àndal eh, gis naa ci ay qualité ci moom loo xam ne jar na àndal te di leen former ci lu bari. leen formé ci lu bari kon loolu eh, yàlla bu defee tey nga dox ba ñëw di mëmat si loolu population du fa yëpp dañ koy rafetlu ànd ceeg yow di la ñaanal yàlla yàlla nag mooy maye mais ku sababluwul yàlla du la jox il faut nga am loo sabablu pour loolu loolu antu te lu boobu mooy li nga dox nii actuellement di ko dox ci biir mbokk yi fierté la ci ñun tey nga toog biir Ndoufouk di wax ak doomi Ndoufouk parce que pur produit Ndoufouk la kon loolu bu amee ñun ñëpp say mag ñoom ñu ngeen ànd ak ñoom ñu bokkul toog waxtaan ah doléance su dëkk bi aussi nga xamaale ko balaa ngay dem naam yaa ngi ci parce que am na jéego yoo ci def ñu xam nañ ko bu baax mais du tere aussi ñu wax la fàttali ni foo ci toll woon nga gën ñoo gën ñoo gën a jàppale ci loolu mu mën a yegg walla école baa ngi fi wala grande mosquée baa ngi fi leneen baa ngi fi mais loolu lépp li koy gën a suuxat mooy nii nga def ñëw toog ak population wax ak ñoom man mën a wax ñoom gagné confiance ñu bari parce que liy gagné confiance wax naa la ko biig nee naa la xëy na am na loo xam ne yaa ngi koy teg ci côté social bi ka ngay jëflanteel ci loolu bu dee doomam la moom parent ba muy yaay ji muy baay bi am na lu muy war a bàyyi xel te bés bu toogee ba nga ni ah man de ci lii laa bëgg a yëngu te lii fii laa bëgg a taxawee dama bëgg ku ma jàppale war nañu xalaat ni ah am na fu mu ñu féetewoon démb kon tey war nañ koo mën a féete fii loolu nag na nga ci góorgóorlu bu baax a baax ñu dellu sant délégation bi nga àndal yëpp et di leen masawu coono yi di wax ne xëy na guddi na tuuti mais sinon suñu wax waroon lu mën a gudd waroon lu gën a yaatu say mag ñi la encadré nga ñëw fii ah ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla taxawu leen yéen ñëpp parce que kër cosaan nga jaar dooru ñëw xëy na seet si chef du village loolu it duñ ci am leen luñ ci sikk mais nañu aussi nañu bàyyi xale yi nga xam ni ñoom ñoo àndoon ak yow démb ñu épaulé leen ci politiquement moralement ñu jàppale leen rehausser seen moral ba ba fépp foo am bëgg na ci yegg ñu yegg fa di la maa lu koy dénku Ablaye yéen a nekk magu kër ga kii muy Pape Dione muy Fatou ñu nga xam ni depuis loolu ñu ngi daw ci gën a Pape mu bëgg naa ngeen jàppale leen ci côté bu nekk ay ndaw lañ ñooy dem di indi ñooy dem di wax kon tey yéen a nekk seen ginnaaw su nga nekk seen ginnaaw nag dañ leen di yow jàgg nga ci politique ngembal say seet lañu say doom lañu say lépp lañu wo war leen ba mu dëgër mentalement armee leen ba fu ñu mën itam dina parce que luy yomb wa daaneel nit fekkee ne yaa ngi door débuté ci politique xamuloo exactement fooy teg sa tànk la lay la lay daaneel yomb la lool kon vraiment ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen masu coono yi di leen ak di leen bàllu ak ci xam ne xëy na kàddu boo xam ne wax naa ko te waru nekkee noonu xam ne doomu adama rek moo matul alkamalulilahi mais xam lii nekkoon suba xol ma war koo mën a génnee lépp dafay xaw a xat ci waxtu bi mais ngeen xam ni man en tant que du village ak ñi nga xam ne ñoom ngeen fekk fii ñu toog mooy oustaz Babacar bi doyen Abdou Salam Diom Bale kële Idrissa Faye agent technique et eaux et forêts Kolda la retraité ñëw kii Jibril Faye la ancien militaire la c'est un sergent chef de l'armée bu retraité ñoom ñëpp ci biir kër gi lañ bokk la ma mébétoon dama noon ñoom waa dëkk bi ne am ñu ñëw ñu gën ñu jokku toog def une délégation ñu toog fi waxtaan ba tënk suñuy kàddu bu ngeen ñëwee ngeen fekk ñu fi ñu mottali lépp ànd dem ci ci ci kii bi mais comme ni ngeen ko expliqué ah loolu vraiment man gisuma ci sikk ngeen jóge fi dem kër kër kër cosaan waxtaan ak ñoom ànd ak ñoom ngeen ñëw loolu vraiment maa ngi leen ci sant amul maa ngi leen ci félicité kon ñu tënk kàddu yi foofu rek E di dellu sant ñëpp di. Papa Mamadou ñu ngi mii dafa ñibbi si kër baayam kon man mi nekk présidente des femmes presque mu euh, financement yi ñu def yëpp ci samay loxo la jaar Papa Mamadou daan na assister mais ñun ñoo ko daan fekki mais mosta fekki doomu aadama mais nag fonk gu mu fonk waandu fa fonk gu mu fonk mbokk fonk bu mu fonk Fatou fay moo tax mu déplacé wu tey ñëw ni day financé si Fatou Faye personnellement ci loxol boppam loolu lépp fonk deret moo ko waral Abdou fay maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ndaxte sunu xamee yàgg na lool ñu nga xamante woon depuis la parti socialiste bay woo man sax yow Abdou Faye yaa ma dugal parti socialiste ñu xamee ca lool en tant que Ousmane Tanor Dieng mu nekk premier ministre kon loola yàgg na nga suuxat kóllëre googe ba yàlla dogal tey ji ñuy dox di dox di dox ba egg si fii kon amee naa la ngërëm amee naa la sant maa ngi lay gërëm di la sant man nag jigéen ñi Ndufag laay waxal yéen jigéen ñi Ndufag yéen laay waxal jigéen ñi Ndufag yéen laay waxal dama ànd ak seen doom ànd ak seen càmmiñ ànd ak seen jarbaat ànd ak jëmm ju jëmm ju sell ànd ak koo xam ni jàpp naa ni ànd ak koo xam ni jàpp naa ni leader mënatu la mel ni moom man dama wax ni Pape moom la ñuy sagoo moom la ñuy tiitaroo politique naa nag depuis Ousmane Tanor ba tey ji mais responsable mel na Pape Mamadou Gningue gisaguma Pape Mamadou Gningue jàppale na jigéen ñi jàppale na ndaw ñi jàppale na mag ñi loolu moom dootu tay naa sax di ci delluwaat parce que répétition yi li may wax ci moom toujours toujours toujours benn baat bi la ma ngi partout ma ngi ci social bi ma ngi ci lépp ba créer le mouvement ASP alliance pour un Sénégal prospère sa gëm naa ni ñun loolu la ñu gëm moom la ñu xam ci la ñuy dox ci la ñuy yëngatu ma di leen ñaan ak yéen waa Ndufuk carte ASP bii nga xam ni créé nanu ko muy sunu mouvement yéen maa ngi leen di ñaan kenn ku si nekk na jënd carte bi si téeméeri dërëm ndax jënd carte bi mooy wane sa jàppale ak Pape Mamadou Gningue mooy wane ni ànd nga ak Pape Mamadou Gningue moo koy dooleel aussi sa moom itam en revanche tey jii carte bi ku ko gis si yow dina ko leer ni kii nitam la kon maa ngi leen di ñaax yéen waa jigéen ñi ngeen jàppale Pape Mamadou jënd kartam carte de membre bi kon carte de membre boobu dinañ ko jox faat fay dinañ ko jox faat fay ginnaaw bu ñu santee yàlla nag di dellu di santaat di santaat di santaat ñu ngi leen di yëgal ni financement yi ñu ngi ci 30 groupement yoo xam ne financé nañ leen mais 30 groupement yooyu ñu financé yëpp 26 yi c'était au mois de juillet quatre autres yi semaine passée rek lañ leen finance après bi ñu financé li ma gën a neex Pa Modou ni ma nag damay arrêté financement yi balaa maa arrêté financement yi di dem feneen damay seeti samay mbokk waxtaan ak ñoom financé leen soo gisee nag financement bi tey ñu andi ko jaarale ko ci loxol Faat Fay Pa Mamadou bi mu nee bërët dañu ko ni kuy xare da ngay yor ngànnaay sa ngànnaay li mooy carte électeur bi kon mbooleem jigéen ñi mu financé ñëpp par groupement danoo dajale seeni carte électeur andil ko ko Fat Fayit wax dëgg yàlla réunion bu nu mos a réunir moo Jonn teew nañ fa ak Youssou Ndion ñi ñëw latim xam na ni am nañu yéene ji loolu moom biir nañu am na nañu yéene jàppale gi loolu biir nañu mais jot ci boppam moo amul parce que fu faatu egsee Pape Dione egsi fa mel na ni ñëpp teew nañu kon dinañu gërëm ñëpp di sant ñëpp faat fay nag fa waa Ersan jaar waa Daaru Salaam jaar fa waa Cité Lami jaar fa waa Cité Senghor jaar fa waa Kër Ablaye Yaxin jaar fa waa Mbambare jaar fa waa gën jaar fa waa Sampaate jaar fa waa Daaru Salaam 1 jaar fa et cetera et cetera suba ñu ngi leen di leeral ni ñoo nga jëm Ngumsaan Ngumsaan la ñuy dem suba comme nii nu def fii suñu fa jógee dinañ dem Silma suñu jógee Silma dinañu continuer yeneen financement yi soog a dem peykuk séréer jàpp leen ni fépp ñoo nga fa bu soobee yàlla ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen wax ni leen ànd leen ak Pam Mamadou ndax mooy seen doom Pam Mamadou mooy seen lépp kon kuy wàll yaan sab dëkk moo tëggul kuy wàll yaan sab dëkk tëggul te la ngay jàppaloo ji jàmbur jàppale ko sa mbokk moo gën ndaxte kat jàmbur boo fi jàppale su amee tey dem jëti mbokkam sa pam Mamadou mii yéene ji mu am ci Ndufat am ko fépp nag partout ndaxte su doon ni problème mu financement wala muy problème mu aide wala muy problème scolarité wala muy problème social lépp mën na ko ci poosu boppam macha allah macha allah macha allah mais soo gisee nag mu dugg ci politique. bëgg seen lëndëm gi ngeen ne ni kurus bëgg tali yi bëgg courant bi bëgg ndox mi bëgg invest yi bëgg école yi dispensaires yi lépp am fii comme ni mu amee fépp kon jàppale leen Pape Modou jàppale Pape Modou seen njariñ la maa ngi leen di ñaax pour ngeen jàppale Pape Modou surtout yéen jigéen ñi jigéen nay falaate jigéen ñi ku ñu jàppale nga falu sama mbokki jigéen ñi sama doom yi sama rakk yi jàppale leen Pape Modou jigéen ay fale te ku mu fal nga falu kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. ñoo ko sañ loolu kenn du waaw lan moo xew ba Thiès ñu nangu ko ci séeréer si lan moo xew ba Thiès amuñu fi nekk di lajj lacci lacci nangu cees séeréer si bàyyi Thiès ñeneen yore ko loolu dama bëgg yéen ñun ñi nga xam ne ñoo nañu ñun séeréer si. ñu jëlaat Thiès benn bunta fi nekk mooy Pape Modou soxna Mbacco dama ne li nga wax responsable politique bu mel ne Pape Modou Thiès amu fi sama loxo ca kaw sama baat ca kaw Thiès amu fi ku mel ne Pape Modou kon yéen waa Ndoufakh dama bëgg ngeen jàppale Pape Modou boo ko deful ñu récupérer ko ci yéen lu leer laa leen wax bu ngeen jàppalewul Pape Modou ñeneen koy jël ci yéen te yéen yéen a moom Pape seen doom la kon ngeen jël ko jàppale ko yëkkati ko ndax kii ba ma ànd moom réccuma ko ndax sur le plan éducationnel mi ngi jàppale xale yi projet formation éducation man maa ko yor ren li mu ci def man dafa dafa jéggi dayoo ay millions nga jël def ko ci ay xale ñu am bac ñii am BFM ñii am entrée en sixième te mu mënoon jël alal joo def ko ci leneen mu def ko ci njàng mi def ko ci xale yi kon ñu kooku war nañ ko jàppale ndax am réew am réew buy taxaw ci am njàng lay taxaw te moom li ko soxal mooy njàngu xale yi kon ngeen xam ne mbër la ci biir mbër yi dama ne kii booleen ko jàppale seen bopp ngeen jàppale boo leen ko jàppalewul seen bopp ngeen koy def ndax kii kenn la ci leader yi nga xamante Thiès man gis naa xool naa leader yëpp ku ci nekk peese naa la waaye kii ah bu ko jàppale doon ko réccu de barke sëriñ Touba kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di leen gërëm. kon nag bugguma politique tax mu nekk loo xam ni damay def nit lu ko naqari wala may ñaar nit lu ko naqari wala liy feewale dëkk bi jóge ci man loolu sama papa Ndiaga ñu ngi ma tëdd su ko yëgee dina ma dina ma gën a mere ca bi mu fiy jógee yaakaar naa ni gërëm na ma am na nag yu bari yoo xam ne daanaa ko waxtaan ak moom gëm naa ne ñun ñëpp la jubóoloon ci kër gi mais man de particulièrement gëm naa ni sama xarit loolu doon naa waxtaan ak moom li ma xam ci dëkk bi ak xam ko ci famille bi gëm naa ni bari na sama wax nag bariwul ak sama génn bariwul wante xam leen ni lu ma am ci cees ak lu ma am ci àdduna fii nii ma dugg tey moom ma ko gënal te sama papa def na ko ba nga xam ne génnoon na ci dëkk bi xëy na wante man de ba may njëkk indi ci dëkk bi lu ma fenn fii la ma indi néegu bàyyi daal laa fanaan juróom-ñaari fan fi laa njëkk a dugg. waxuma la ki dëkk cees mais fii laa la ma indi directement ma nekk ak moom pour wone ànd bu mu ànd ak moom ak bëgg ak fonk gu mu fonk séeréer ak fonk gu mu fonk njaboot ak jub ak doxal lu jub kon nag tànk yi ma def ni tey tànku mbokk la di jéggalu nag li ma toog boobu ba léegi ngeen di ma dégg ni maa ngi yëngal lu ñuy tuddee politique booba xëy na nit ngi ñoo ko tudde woon politique mais man booba local moo jotoon rek ñu ne ma waa koñ ba ne ñoom gis nañ ci man ay jikko yoo xam ne doy naa leen pour ma taxawal leen ci local yi ma jóg ànd ak ñoom di def local ñu ne ma local yi Ndufak ak Ngum Saan ak yooyu bokkuñ ci local yi moo tax ña ma doon wax ñëwal fii man leen deet nañu xaar ba lu tax ma di fa dem te bëgguma faa dugg it ca xaw ma naka la politique bi tëddee foofu parce que dëkk boo xam ne kër boo fëgg sa mbokk la loo fay yëngal na xaar ba ay mag wax la bu baax fooy teg sa tànk parce que mën nga faa def loo xam ne mën na fa indi jéyee ju ëpp lu taxoon nga defa xëccoo loolu nag xam leen ni moo ma tax a jóg may ñaan waa dëkk bi yëpp ñi teew ak ñi teewul yéen mag ñi dangeen dox ci loolu ma leen di ñaan ngir yàlla ñu woo xale yëpp woo mag ñëpp woo imaam ñëpp ñu waxtaan xam ni intérêt dëkk bi rek moo ñu wax a tax a jóg parce que Ndoufac ak dëkk yi ko wër ñoom ñooy Thiès suñu demee nag ba yeneen dëkk yi di développé suñu dëkk yi ba léegi soo fi rombee mu am ni mu mel ma fi mujjee ñëw école bi ma fi gis néegu ñax la keroog ma ñibbi jooy laa def loolu li ko indi mooy ñu bàyyi suñuy cër di ko jox ñeneen ku nekk war ngaa xalaataat loolu. man su ma jógee di woote politique tey jàpp naa ni su dul woon mbokk coono la ci man Ablaye fay mii xam na ko mënumaa amaat beneen poste bu ëpp post bi ma am tey bu ma mën a indil xaalis bu lew bu ëpp li may am tey mënul am ci nguur lu ma ci jël leneen rek mooy dama cee dugal xaalis bu lewul te ñaan ma loolu yàlla kon nag su ma li ma doon may jàmm kay mooy ma toog ci li ma nekk parce que poste bu ma jógee sama poste bi dem ci beneen poste mënuñ maa fay lu ëpp li ma am ci état état ku fay liggéey xam na ko inspecteur bi xam na ko salaire état du dara ku ci am xaalis rek jaar la nga jaar yaa ngi jaar ci loo xam nekkul noonu ca man fas yéene wu ma lool. kon nag nañ ko déggandoo bu baax na waa dëkk bi booloo pour le moment wax guñu kii mooy diw kii mooy diw nañu xoolante rek bu baax naka nañuy def ba développer suñu dëkk bi. di leen ñaan nag ngay ñëw ànd ci mouvement bi ma yëkkati su leen doyee xeexuñu kenn woo nañ ci ñëpp pour ñu àndandoo ci waa ñi ngeen nag waa Fayeen nag moom xalaatuma ni leen gis seen doom ak seen waa dëkk jóg ci loolu daal su ma koy résumé mooy pour leeral ci lu gàtt dinaa gën a guddal ci fi may dem mooy li nga xam ni moo ma gën a ñor ci li nga xam ni maa ngi koy dox di gërëm nag waa dëkk bi bu baax a baax di leen wax ni que fii sama dëkk la suñu kër la ñëpp laa fi amal jàmm damay dégg sax ay wax yoo xam ne des fois ay nit dañuy yow di ma ko wax man leen hee yéen da xamul la xew maag Mamadou ñing benn lañu dara mënu ñoo seddale yàlla def nañu ñoo bokk tur yàlla def nañ suñu papa yi ñoo bokk ndey ak baay kër gii laa fi dugg ak kër ak bee di ko seeti ji amul dara loo xam ne mën na ñoo set teddale bañ na ko ba li ma njëkk am ci àdduna mënoon naa ko def ji feneen daaw salaam laa ko def sama fi sama papa moomoon te kër ci nji ci Ndofane ji la bokk ci toolu toolu waa Ndofane la bi ci topp fii laa jënd tool tool baa ngi nii si seen gannaaw jënd fii kër ci digg dëkk bi pour wane leen ni man dama fee bëgg a dëkk kon xam nga kooku demul feneen aw ma leneen ci senegal lépp li ma am senegal fii laa ko def tool bi ma gën a am mu ngi fii ci gannaaw sama kër a ngi nii ci gannaaw sama benn kër bi ma am Thiès mi ngi fii ci tool sama papa yi nga xam ne seen maama ko bëyoon kon kay man lépp li ma am fii laa ko am fii koo fi dimbalewul ñëw ma kenn pour xeex fi kenn pour wàññi fi kenn dara tàllal nañ loxo ñëpp di woo ñépp ah foofu daal laa mën a yemagum ba gën a xam nag naka la fii tëdde di sant ñëpp daal di